Lawyer Dabo avocat la euh, xaw a cee yàgga tuuti ci liggéey bi waaye gannaaw loolu itam euh, ci ñaar fukk at bi passé ni maa nekkan euh, njiiti United Democratic Party parti bi nga xam ne moo contrôlé assemblée nationale ak maire yi man maay njiiti parti boobu waaw mais nëgë nii ñu nekk nii Lawyer Dabo yaa ngi woon ci nguur gi comme nu nga ko waxee tey maire yu bëri yaa leen ko contrôler euh, nekkatoo léegi ci nguur gi ñu bëri nag ñu ngi wax sa digganteeg euh, le président son excellence Adama Barrow est-ce que mun nañ xam exactement su fekkee mun nañ ko xam nit yi lan moo dox seen diggante exactement wala yow yaa demal sa bopp wala euh, dañ la génne sa place. <coughs> président Adama Barrow nag ci parti United Democratic Party lañ bokkoon coalition bi tànn ko. ñu def ko candida pour coalition bi ci condition bi ne dafay resign mooy dafa démissionné ci United Democratic Party mu nekk independent candidate eh, mu bàyyi waaye nag eh, ci eh, ñun duñ foog ne ne ci baatin ñu foog ne ne UDP la ci parti bi lañ bokk ñu ci ci lañ ci la bokk and because uh, uh, noo liggéey ci coalition bi uh, waaye nag am nga politique yenn dafay doy waar kay naam man dama gis ne ci côté politique ji daan xew warta xew loolu waaye nag loolu nag li ma suma li fi nag suma liggéey ci nguur gi ya. uh, affecté suma ci nguur gi li ma war uh, as foreign minister man ko def ni mako wara def eh. Eh, def demee ne lol sa moo tax ba ñu yak yak suma place pour nak vice waye why eh, really amoon na jamono boo xam ne gis naa ne daal président euh, Barrow daf noom ni mu doon dugg si biir UDP dafa ko bëgg a xaajaale parti bi te euh, waaw xoon naa ko ne man nag pour naka président Gambia teguma ci suma bakken ne luy mun a doon dama def everything pour mën naka président ma ne déedéet waaye nag teg naa sama bakken ci bugg a xaaj ci isi xaajaloo ci diggante UDP parce que loolu mooy sama legacy depuis ñaari fukki at UDP ñoo fi nekkoon ñoo xam ne troité eh, boo mën a xalaat UDP lañ ko teg ma limal ko ay kilifa ma ne ñooñ gàcc bi leen teg liñ leen def ci réew mi di ndig pour UDP du ma toog nag ma gis ne mu nit bugg a xaajaloo UDP koo mën a doon loolu pare na sama bakkan des ci waaw. mais euh, ñeneen Ousseynou ñu ngi wax ni que peut-être que xam nga excellence Adama Barrow bu muy toog waxoon na ni man ñetti at laay def ñëpp dégg nañ ko. mais est ce que du loolu tamit du loolu moo tax seen diggante ñagas yow waxoo ko mu respecté loolu. déedéet déedéet déedéet il faut Gambia yëpp man tey <laughs> ñëpp ak maa ñu man ma taxaw ne président Adama baro du fi toog ñetti at ñan juróom at la fee toog parce mahas loolu la loi bi tëral ñëpp ma ñëpp ak maa xas ci loolu so pour man nga lu dafa war aw ak loi man pour man. constitution bi loolu la eh, wax naa ko ko wax naa ko ñe ma ne de nit biñ demoo ci voté ñu ngi doon tànn président ni ko loi bi tërale mooy ne ñu ngi tànn président pour juróomi at soo réeli soo nee nee ñetti at man daal la loolu méngoo ak suma xalaat waaye nag maa ngi doon wax ak tànka ne loi looya la eh, waaye ñun eh, Gambian si yëpp yepange yepange ma ngaña Ousseynou Daw mo def li Ousseynou jise Adama Barrow euh, ñemeñ ɓe ɗi wahane dégg nga man juróom at la Ousseynou Daw moo ko moo ko moo loo mus ma koo lifi ne pour ne pour pour ne dafa dafa lifi ñetti at mus ma loolu loolu mus naa nekk sama position personnellement mus naa nekk Euh, waaw gis nañu aussi tamit euh, parce que temps sax ñu ngi ciy waxaat euh, mooy maanaam prison bi am na lu fa xewoon ci mbirum xasaayit ñu ne Sénégalais bi moo fa doon wax ñeneen ñu ngi wax kii génn na nu mu tànk porte-parole président bi wax ñi ñu ngi wax fii côté daawo aussi tamit ñu ngi wax mais mun nañ xam exact li lan moo fa xewoon la voilà actuellement wax jooj pour man la hmm. eh, parce enfin nekkul woon sénégalais sax ki doon sikar nekkul sénégalais sax gambien la ma feeñal wax jo pare ma bes bés ma digal ñi nga xam ne UDP lañu te ñu tëj leen na ñëpp or ku ko or ñaari fan gërëm suñ borom li def ba Gambia génna fi mu nekk ba pare dimanche ma ne leen nañ leen jàng alxuraan wàcc alxuraan ñaan pour seen réew mi waaye président nag eh, xam naa ne dafa doon jéem a wax nit yi ne soo gisee man ma génn kaso moo tax eh, xamut woon ne o fàtte na ne su ma dem prison moo tax moom mu gañe parce que su ma mbuba la sol wër réew mi su ma tur la jël campagne ko fatte na loolu foog ne moom moo ma génne prison te dégg nga waxuma waxu suma tur waaye nag xam nañ dégg wax ji lim tekki xam nañ ko te foog naa deen wax jooju wax ju ñaaw la ameen suñ condition ci prison bi ne day bugg a fresh air ah waaw bugg nañ fresh air ne cool air fu sedda dëgg la so mel na ne ñun ci condition bi nekkoon loolu mu ko doon ridicule ne eh, ñu ngi nekkoon di torox man ma len gene way nag man nag toro toro ma foofu pour sama bop te sant na yalla ne day ma tej ne nekkul ne dama fraude o def lo xamne ne lu ñaaw la wana na affect sama caractère sant na yalla dama def lo xamne pour Gambia la te eh, alhamdulilah mom bopam mu ne ma mu ne man may Nelson Mandela so su toogee ba léegi di di di wax façon yi daal loolu loolu loolu daal bett na ma soo dañ war a daal di màndu ci suñ kàddu xalaat balaa ñoo wax buñ gis eh, mbooloo ba ñu fàtte suñ boppa ba ñu fàtte li ñoo ba ñu lu ñu war a wax buñ ko def parce que balaa avant loolu am na kenn ci ndawayim ne ñi nga xam ne day nekkoon kaso Adama Barrow génnee leen ñooñu di ko or ñooñu duñ ay nit yu baax te ñu loolu loolu référence bi ñun la waaye nag duñ tontu fa duñ tontu ñooñu parce que ay nit la loo xam ne daal du suñ classe so ñooñu duñ leen tontu waaye nag boo jëlee kooku li mu wax ak moom li mu wax nii nga xam ne ñun la doon nga xam ne ñun la doon wax na nag dama li euh, duma ko ci eva tontu. bu ko am nañu ko tontul man kat li ma ci lifoon li ma ci xawoon a tiis tuuti mooy euh, nga wax porte-parole gouvernement bi gooma loolu liggéeyam la parce que porte-parole gouvernement dangay wax loo xam ne yëfi gouvernement bi la dooy wax politique yi président bi seen protocole euh, seen protocole Euh, politique bi ñoom ñoo war a tontu loolu soo dañ war a séparer gouvernement bi ak suñ politique bi te euh, loolu daal loo loolu soo gisee sama comment ci sax pour ma mun a feeñal loolu ne porte-parole bi daal na moytul parce que koo xam ne ma man dama ko respecté xaleel na waaye respecté naa ko ma ñun ñëpp a nekkoon ci struggle bi di xeex yaa jàmme mais moom mu bàyyi réew mi nekk si biti réew continuer so li nga xam ne lu ñaw loolu li nga xam ne moo fi doon xew ñu xeex ko bu bu mu nangu kenn dugal ko ci loolu tax otherwise ñoo ci doon def because am na yeneen wax yoo xam ne wax nañ ko foofu ma ko lay ma ne de duma command ma commande parce que ñooñ seen xel ni toll